ñi ngi fi tey euh, commune Mbambilor ci cadre projet bi ñuy woowee FMM Glo 132 MUL bu nga xam ne FAO moo ko euh, sookee lëkkaloo si ak ay partenaires euh, comme SICODEV comme ENDA ECOPOC comme PAIDD Euh, mais projet bi ministère bi nga xamanteni mom lañ ko signé euh, parce que ministère euh FAO de tutelle ministère de la culture là mais pour approche projet bi nga xamné approche SAT la tudd approche euh, système alimentaire territorial dañ ko signé ak ministère des collectivités territoriales à travers la direction de la promotion du développement territorial légui nak ñi ngi ak acteurs yëpp pour gën a yokk liggéey bi ak ñoom ñu xam déjà projet bi lan la lan la lan moo ko tax a jóg ñu liggéey ak ñoom daal di recueillir seen ay besoins ci loolu nag la ñu mën a basé pour mën a génnee euh, priorité yi nga xamante ni localité bi am na ko sur question yi nga xam ne mooy les questions d'alimentation et de l'agriculture lépp nag li koy waral mooy du ñu bëgg daal maanaam yokku dundinu la collectivité territoriale bi nga xamante ni mooy euh, commune bi nga xam ne commune lool jàppale euh, nit ñi si la nga xamante ni moo leen di dimbali si les questions d'alimentation te bu ñu waxee loolu buñ né système alimentaire dañuy laaj secteur yu bari, production, de yu bari, manam production euh, commercialisation consommation et aussi même le transport et la gestion des déchets ci le système alimentaire la bokk donc ñu ngi si biir pour mën ñu mën a liggéey pour dimbali euh, askan wu euh, Bambilor. mel ne mën na yokk aussi koom-koomu gox bi. bi parce que euh, lépp li nga xam ne day jëm ci wàllu mbay ak lekk. loolu foo ko mës wax rek day yokk xam koom-koomu koom-koomu parce que bu ma nee la système alimentaire production ñay produire dañuy jënd dañuy dañuy bay ñiy commercialiser ñi ngi fi. Nous nga xamante consommer parce que dañuy dem di jëndi loolu yëpp ci développement wu chaque composant ak filière nga dundal gox bi ci la localité bi war nga ci gis biñ projet nous commencé projet de gouvernance de la sécurité alimentaire. projet boobu nag euh, bon dañ Bambilor. ci ndimbalu FAO ak euh, ancrage au ministère des collectivités territoriales ñu commencé ko fii tey ci Bambilor waaye war nañ ko yeggale tamit fële ci Koungheul ndax ñaari euh, commune lañu jël ci Sénégal pour euh, def liggéey boobu donc tey dañ fi teew defoon nañ lancement bi ñaari semaine ci ginnaaw tey dañ fi teew ngir xool ñi nga xam ñoo war a bokk ci liggéey bi ñan lañu ak naka la ñuy fexe ba waxtaan ak ñoom ci yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ndax su dee da war a gérer sécurité alimentaire il faut nga xam ne ci biir sécurité alimentaire boobu ñi ciy bokk dafa war a bëri euh, agriculteur baa ngi ci producteur baa ngi ci transporteur baa ngi ci boutiquier baa ngi ci ménage baa ngi ci consommateur baa ngi ñëpp ngi ci biir même école yeeg ñoo ñëpp ñu ngi ci biir loolu nag su dee da koy def mënoo ko def tant que waxtaanoo ak ñoom ngir xool lan lañ fi jot a def yan jafe-jafe lañ ci am ak naka lañ ngeen war a tàggatee ba nga xam ne li nga fiy liggéey tey ci at bii di ñëw suñ ci paree ñoom ñu mun ko jël daal di koy wéyale maanaam rendre durable ah, mu nekk euh, loo xam ne dafiy wéy. loolu moo tax ñu bàyyi ci xel ndax dañoo xam ne xale yi tey euh, dañu am solo ci liggéey bi ñuy def ndax ñoom xam nañ ne lépp loo xam ne question développement la. soo ko commencé ñoom ay vecteur lañu vecteur ngir mën a transmettre xam-xam boobu ak li ñuy jàng ci kii waaye vecteur lañ tamit ndax euh, euh, tey su dee ñoom ñooy mag ñi nga xam ñoo war a jiite suñu gox yi soo leen jàppalewul tey ba ñu mun a euh, saafara xiif bi ñuy jànkonteel jàng bi du mun a donc moo ñu bàyyi xel ci ñoom te bon di waxtaan ak ñoom aussi ci yan jafe-jafe la ñuy jànkonte seen i waajur yan jafe-jafe la ñuy ñi nga xam ne ñoo nekk ci chaîne alimentaire ko ñu ni ma koy waxee sànq yan jafe-jafe la ñuy jànkonte ba nga xam ne dañu fa mën a teg benn plateforme booy tax ba ñi nga xam ne dañ ciy liggéey ñëpp mun a lëkkale pour xam jafe ak lañ donc projet bi euh, li tax que dañu xam ne mbirum lekk dafa am importance dafa am solo euh, ci suñu dëkk yi surtout dëkk yu Sénégal donc moo euh, ñu lëkkaloo ak FAO ak organisation de la société civile comme ENDA ECOPOP comme Payet, ñu ne acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci système alimentaire maanaam depuis ñi defar euh, jiw bi jaar ci producteurs yi jaar ci femmes transformatrices yi consommateurs yi aussi bàyyi ñu leen ñu woo boole leen ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom ñu wax ñu lan mooy seen bëgg-bëgg lan la ñuy séentu pour euh, am système alimentaire maanaam Lek boo xamante politique boo xamante ni euh, jaax territorial pour que ku si nekk mën ci gis sa bopp. ñun euh, dañuy liggéey ci lépp luy dooleel communauté bi maanaam ñu woowee renforcement de capacité ci wàllum Lek, ci wàllum mbay mu sell ci wàllum agroécologie donc dañ si bolé, dañ si andak, ak ak ay nit yoo xamante ni dañ ci xarañ ay nutritionniste yo xam ne ñoom loolu moo leen tax a jóg loolu mooy seen liggéey ak ñoo xam ils sont ay spécialistes

donc gërëm ko sant ko mais gërëm nit euh, les partenaires au développement que muy wa FAO que muy SICODER que muy le conseil départemental de Rufisque au passage que ñuy gërëm vraiment le président du conseil départemental de l'orientation yi ñu def pour que commune Bambilor vraiment mën a approprier le projet euh, xalat nañ bu ñu paree ci ñaari fan atelier euh liñ ci sentu dinañ ko ci am sentu ko moy liñu bëgg ci askan yi taxawal ay cantines scolaires taxawal benn cuisine euh, scolaire boo xam ne suñuy sœur suñuy rakk ñooy togg di jox suñuy doom pour ñu mën a rester ci biir école yi donc loolu mooy objectif bi FAO dinañ ci accompagner euh, ONG yi dinañ ci accompagner commune bi dina jël moyens yi mu amee def ko ci pour que jigéen ñi nga xam ne dañuy produits yi ak producteurs yi nga xam ne dañuy bay ñu mën a jënd li ñuy bay di ko indi ci cantine scolaire bi pour di ci mën a toggal suñu njaboot. loolu mooy vraiment solowu ndajewu tey bi. waaw lépp mu ngi nekk ci volonté wu kenn ku ci ne ci ñun acteurs yi commune bi dafay am volonté lii mu suqali ko bam bu fa demee. partenaires yi la même chose kenn ku ci ne foo ci war a taxaw da nga taxaw te boo ci taxawee incha allah yaakaar naa liñ ciy séntu dina mën am antu dinañ am bu ñu amee moyens yi nga xam ne FAO dinañ ko jox ak moyens commune bi ñu am nit ñu ko sox ñu ko bëgg pour mën a taxaw liggéey bi yaakaar naa bu boobaa liñ ci bëgg dinañ ko am jërë jëf.